gis-gis bu baax parce que dialogue du doy ndax lu baax la te lu baax du doy te dialogue mooy euh, tax li nga xam ne d'accord nañ ci bu njëkk ñu mën ko dëgëral mën ko saxal mën ko wéyal mais dialogue aussi mooy tax li nga xam ne waxtaanee woon nañ ko bu njëkk te ànd te d'accorduñ ci woon bii paa ñu mën cee d'accord mu nekk lu nga xam ne luy yokk démocratie la luy gën a xóotal euh, euh, démocratie la te yaakaar naa ne bu ñu seetee démocratie Sénégal nga xam ne foo dem ci àdduna bi ñu ñu koy tagge euh, ñun ci suñu daal bopp ñun Sénégal ñu koy bàkkoo li ko indi mooy ay dialogue yuy tegaloo yaakaar naa ne depuis Senghor depuis Diouf depuis Wade jusqu'au président Macky Sall nit ñaa ngi nit ñaa ngi dialogue kon yaakaar te loolu ñun gis nañ ci njëriñ ndax Euh, loolu moo ñu may souvent ñuy ñuy ñuy dépasser yeneen réew yi nga xam ne ñoom ñoo wër euh, ñoo wër Sénégal ndax ñun euh, dañuy waxtaan suñuy mbir dañuy saafonte dañuy dañuy gisante may am mbégte trop gis ne am na ñeneen ñu nga xam ne bokkuñu woon ci dialogue bi ñu passé tey ñu bokk si ci ñu mel ne waa PDS ñëw bokk si ci ñu mel ne waa Taxawu Sénégal ñëw bokk si ñoom Cheikh Bamba Dièye ak ñeneen ak ñeneen ñu nga xam ne. xaj na jaloog bi ñu paase bokkuñ si woon day wane rek ne euh, conflit boo gis moo xam armée la moo xam politique la la koy saafara rek mooy ñu toog ci ñu ñu ñu toogee ko ci taabal kenn ku nekk euh, joxe sa xalaat kenn ku nekk joxe sa gis-gis te man dialogue dama ci xamul préalable maanaam dama ci xamul condition ndax ki lay woo dialogue xalaatam rek la yor yooyu tamit nga yore sa xalaat euh, war nga woolu sa xalaat nag ba ki lay woo ci dialogue Euh, su la wooree wax la lu nga xam ne àndoo ci nga mën ko wax ne ko ànduma ci bu indee argument nga indi argument indi sa argument te comme ni ko président waxee amul benn sujet bu nga xam ne tabu la sujet yëpp lañ mën a waxtaane gëm naa ne ñëpp waroon na ñoo ñëw teew si ci biir euh, dialogue bi